Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee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 joxe Cheikh Mamadou Fadal mu leeral nañ ci barab bi li ko dale ci débarcadère bi ba bi sëñ bi ñëw fii incha allah ñu euh, teewlu arrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa asna xadimihi zawi ridwani wa tamkin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yeesalaat suñu jaayante ak suñu cofeel ci suñu yaakaar Mawlana al Abdul Xadim ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp leen ziyaara di leen ndokkeel ci xew-xew bu màgg bi ak ci eh, maanaam fan yu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk rawatina fii ñu taxaw tey ñu ko sëñ imaam Masayer waxe ñu war fee leeral rek loo xam ne eh, fàtt xam naa fàttali rek lay doon xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi soog ñëw ci béréb bi waaye même bu fekkee ñu ngi fi ñëw itam ñàkkul ne daanañu dégg histoire bi euh, li ñu ciy jot a xamakus néew ñu leeral ko bu ko defee mu doon njariñ ci képp koo xam ne mu doon fàttali ci képp koo xam ne xëy na xamoon na ko waaye ki ki nga xam ne xamu ko woon itam mu doon loo xam ne lu mën a yóbbaale lay doon fii ñu taxaw nag ni ko imaam waxee euh, xam ngeen ne ku baax ki Cheikhul Khadim bi muy ñëw fii ci maanaam réewum Gabon mi ngi wàcc fii nga xam ne bu ñu jógee fii fa lañ jëm nga ne mooy maanaam fi nga xam ne moo nekk débarcadère bi ba mu fa wàccee wax nañ ne dafa dox ay jéego ci suufus Gabon ba benn béréb bu ne woon fii ñu ko daan wax malaayika léegi benn banque moo fa nekk fa la njëkk a julli ñaari rakka ñu soog koo indi nag internet ko fii ci nga xam ne moo nekkoon quartier général bi te maanaam doonoon fi nga xam ne fi tubaab bi nekkoon ak seeni soldat ak yooyu euh, yàlla def na ci gëstu yu mujj am nañu. taarix bi dat bi nga xam ne ci la ku baax ki agsi ci suufus Gabon loolu biñ ko dëppaleek lenn ci li nga xam ne sëriñ bi bind na ko dafa daal di doon loo xam ne eh, lu maanaam loo xam dafa dëppoo ndax sëriñ bi ci ay mbindam xam ngeen ne tukki bi da koo ñoroon ba fi mu jaar fépp da ko bind bind na ko ci anam yu wuute am na ci boo foo xam ne benn manzuma la boo xam ne da koo woy eh, léeg-léeg mu dugal ci wesar di di di di di ci nett li jaar-jaar yi bi muy agsi Gabon nag da Eh, eh, eh, ay bayit yoo xam ne da caa tudd bis ba ak waxtu wa mooy fi mu waxee ne qad wasalu fi subhi yowma al arbaa baada jihaadin wa azan tatabaa fekk na sax maanaam bayit doo ko jiitu sax mooy fi fi nga xam ne fi lay waxee ne agsi nañ ci dun boo xam ne kay kilifa ak dun ba ca booba jamono mooy iblis mi nga xam ne mooy tooñkat bu mag bi Euh, wax na ko itam ni mu ko waxee ci ci téere boobu la ko waxee ci maanaam gisaaw sakkoor wane ne itam gabon bi ma fi agsi booba mu nekk gabon gu siiw waaye gis naa ne waa waa réew ma ca booba jamono ndax léegi wax dafa xaw a doy waar comme léegi ay macha allah bari na jullit bari na ñu tuub ñu baax ñu fi nekk xëy na ca jooja jamono bi sëñ bi wax moom booba euh, te maanaam texee di ak réer ak ak cànkuteeg waa réew ma ci booba jamono nee na sëñ bi nee na ci ci mbindum loxoom lu siiw la fa yàlla ak fa yàlla yi. léegi date bi nag bi ñu ko gëstoo ci ci ci euh, maanaam archive yi dañoo gis ne mi ngi tolloog fukki fan ak ñett ci weeru rakki gàmmo ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy 1313 ji nga xam ne ci la bi ñëw ci géej gi soo ko dëppalee ak ati tubaab day nekk ñaari fan ci weeru octobre ci atum 1895 loolu nag soo ko xaymaa kon ak bi sëriñ bi déparé Sénégal ba ak si Gabon gi du ëpp fukki fan ak ñaar lool nag mën naa wuuteeg lu ci loo xam ne ñu bari jàppoon nañu sëriñ bi bi muy ñëw dafa yàgg ci yoon wi lool def fi ab diir bu yàgg am na it ñoo xam ne ci gëstukat yi sax jàppoon nañu it bi muy ñibbi itam def na maanaam juróom fukki bis ak nangam waaye daanaka li mu def bi muy bi mu jógee Sénégal di ñëw rek loolu la def lu ñu toll la def mbaa lu a daanaka fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci bi nga xam ne mi ngi ñibbi ndax yàlla def na am nañu mouvement maritime mu gaal yi wala bi nga xam ne mooy la ville de Pernambouc bi nga xam ne moo ko andi woon jëlee ko Dakar Dakar andi ko fii maanaam ci Gabon am nañu dégg nga manifeste bi ak même manifeste batu la maanaam la ville de Masséou bi nga xam ne itam moo ko jëlee Libreville euh, ci bisu alxamis doon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rajab maanaam day koor yóbbu ko Sénégal mu àgg fa la 11 novembre yooyu yëpp kon di ay gëstu yoo xam ne ci bu yàggul gëstu maye na ko bañ man koo gis kon fii bi mu fi accès ci tënk bu gàtt rek tubaab bi da ko interne fii ci biir quartier général bi euh, mu ne fi nag nekk nag ci biir soldats yi di dund ak ñoom moom nettali la ci xalima boppam gu di gi wax ne euh, tubaab yi dañ maa dugaloon ci benn ci ci ci biir quartier yi euh, maanaam mu dend ak armeel yii nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw wax na sax ne booba jooy arme maanaam jooy ñi nga xam ne néew yi nga xam ne ñoo ñoo ne ci armeel yi daanaka da koo sonaloon ba léeg-léeg sax daan na jóge fii di dem fële ci montagne seen xëy na incha allah buñ buñ faagee dañ ci ñëw euh, ba ba doo doon lu yéeme. xaalis bi ñu ko daan fayee tabax ne daana ko suul fii nga xam ne tey fi trésor public bi nekkoon yaakaar naa sax ba léegi mi ngi fi suma juumut ak lu mel ne ministère des bi bu njëkk euh, ko daan jox par weer ñu dem ba ay jamono ñu di nga tabax fa trésor mm, ak itam ministère des finances loolu kon wane na ne sëriñ bi itam mbiram lu doy waar la nee nag tëj gi ñu ko tëjoon ci biir quartier gi mm, soldaar yi lépp lu ñuy def dañ koy def moom tux meeg dégg sàngara dañ ko daan euh, maanaam def ci róom bi nga xam ne moom sëñ Tuubaa nettali na sëñ Modou Xari bu sa ne ko am na bis boo xam ne nee na da ko wax sa ne ko toog naa lu mat weer woo xam ne ci sama kaw laal maanaam sama kaw laal laay jullee fii nii nga xam ne buy julli day maanaam euh, euh, kii ci kaw dal bi day maanaam taxaw ci kaw dal bi nodd nodd gu kawe bu su su àggalee li xam daal di ndax nee na boobu mënta wàcc ndax su wàccee dana jaar ci sobe si maanaam sobe sobe tubaab yi te ba am na benn bis boo xam ne aw dàllam dafa dagg nee na mu mu te fekk amul lu mu ko defaree saa bu demee bëgg wàcc rek xalaat ne su wàccee dana jaar ci euh, ci maanaam sobe si te benn soldaar mi ngi koy xool di ko observé ba mu yàgg mu xam ne sëñ bi daal wu dagg wi moo tax mu daal dem wuti aw takkoon ñëw jël dàll wi takkal ko ko jox ko mu soog a wàcc daal dem dem jàppi nga xam ne kon lu lu lu mett lu nekk dañ na ko fi loola nag tax na nee na ma may muñ tux meeg dégg nga sàngara seeg Euh, ak sobe seeg lépp ma di ko muñ ndax maa ngi maa ngi gëm ne euh, ñoom tubaab yi ak li ñuy sobewu sobewu lépp ñaari malaayka yi yi ànd ak man ñu ngi ànd ak ñoom muy dégg nga ma raqiib ak atiid te ñooñu ñu ñu sell lañ laab lañ ñoo xam ne li leen di lor ci sobe moo may li nga xam ne moo moo may lor man loolu loolu ñoom ma de mooy li leen di lor nee na comme ñoom ñu ngi koy muñ may it war naa ko mën a muñ kon foofee dem suñ tubaab mii mi ngi ñuy jàngal muñ ci boo nekkee ci ay xat-xat ak ci ay jafe-jafe. nee na muñ googu moo ko muñ nag nga xam ne jàmbatuma waxuma dara benn bis ñu génne fii di dem ci seen i camp d'entraînement pour maaji waxtu suba fekk booba xam naa ci maanaam ci njël lay doon jël gu njëkk nii rek fekk asmaan leeragu lool yàlla boole woon na ko ay àndandoom yoo xam ne keroog ba mu génnee mbàkki baari rek te bokk ci li ko taxoon a génne mooy bokk ci ñoom tolloog ñoom daraja muy ahlu badrinil kiram yàlla boole koog ñooñu ñooñu doon ko gunge ci biir bi yëpp ñu ngi ànd moom léeg-léeg tubaab bi ñu gis ne léegi ci ci ci bis boobu nag bi ñu xëyee war a dem nag yàlla muri kiiraay yi doxoon seen diggante ak ahlu badrin ñu jàkkaarloo ak ñoom ñu wade war ki seen i fas yor seen i méteel ak seeni i kaala seen kilifa gi daal ne bu kenn dem na ñëpp taxaw ñu taxaw ba bët tàmbali set mu leer ñu daal di fàddu léegi maanaam gisatuñu leen ba mu amee ay fan sëñ bi nee na seen waa ji maanaam kilifa tubaab bi woo ma ma ñëw ñuy waxtaan waxtaanu daal maanaam jàmm ak yooyu mu ne yore daa mel da ngaa am sa gaa yoo xam ne boo duggoon ci mbir mu la jaaxal daal da nga leen woo ñu ñëw jàppale la dimbale nee na bu waxee waaye nee na foofu sëñ bi ne maanaam ma xamal ay jinne lañ wala nga xam ne euh, di ko réeral ci ci ci ci ci ci ay kàddu nee na mu ne ko daal xam nga li ma a wax nee na moom itam xam naa wan ko ne ko daal maanaam li ñi nga bëgg a wax daal xawma leen ci ci ci kaw ñi ci kaw gi booba itam dafa amagul ndigal ci wax ko ndax sëñ moom sëñ Mate Lamine nee na su ngeen gisee ay ay ay maanaam mbindam bokkul ak mbindi keneen mooy lépp lu muy bind lu nekk ci ndigal la koy bind. muy muy muy muy maanaam xasaay di yeeg lépp lu mën a doon rek yàlla moo naa ko bindal nangam bind nangam te booba suñu borom maanaam ci ci ci xew-xew bi am na am na lu muy xaar pour mu maanaam leeral ko pour mu tudd ko te te fekk loolu ñëwagut. moo tax bi ko waaj waxee loolu mu ne ko daal man ñi ñi ngay wax daal xaw ma ay nit lañ wala ay jinne mu noppi mu noppi léegi nag ñu ne ko nag ko siiwal leen su ngeen ko ko wax moo tax bi mu ñibbisee ba taalif ay sibin laa ngi da jeewal yi di woy xew-xewi géej gi ba ak si Libreville gi war a wax li fi xew daf koo lëm maanaam ci commencement bi da koo lim ci da koo lëm wax ne yastara lil la daa libar wali man qaada li maa xaaba an kulli wali yàlla womatal na ma yombalal na ma la ma doon wut la ma doon mébét ci Libreville gis nga kon sax booba demagul maa yomba de waaye ñu ne yàlla jox na ko li mu doon wut ci Libreville la ko yombale moom mi nga xam ne moo ma jox loo xam ne ump na bépp wali yi foofu nag maa raabi an ko li wali yi jógi nag mu maanaam mu daal di koy lem tudd ko ndax boobu amagul ndigal ci wax lool lu mu doon moo tax sëñ bi Lamin nee na ci xaside googu sëñ bi bind na ko lu yàgg ñu koy jàng te ñaari béy di ci topp ñëwul ci xaside gi muy l xaada ji ak dégg nga yàqoodu lii xaysu akadullahu ji ba ni mu ñëwee njaareem ba am ku ñu wax Sidi Sarr di taalibeem di liggéey ci gaal yi ñëw Gabon gi ba ñëw Libreville fekk fi soldaar boo xam ne fekke woon na xew-xew booba muy wax moom ba mu xam ne sëñ bi la jógee mu nettali ko xew-xew ba nag mu daal di ñëw euh, euh, maanaam wax sëñ bi sëñ bi ne comme wax nañ ko nag danañ ko wax fekk sëñ bi laa ne la sëñ bi jot ndigal pour bind nag ñaari bayit li firi maaxaabaan maaxaabaan ku mooy feeñu ahlu badrin ci réew mu lëndëm mu bari